Salam salam eh, salam gani euh ñu ngi leen di nuyu si suba tey bi ah waaw eh, ndigal jib na ndigal bu jibee jëfé rek mo ci dess waaw président Ousmane Sonko néna nañu tak masque dañ ñëpp dem tak masque Tak leen masque respecter respecté mesure de barrière yi bo leen ko défé ba paré président Ousmane Sonko néna na ñëpp dem bindu ji ci liste électorale dem leen bindu ji waaw surtout ndaw yi dem leen bindu ji ci liste électorale yi lolay kon euh, dañ ko jëfee ndigal wàcc na waaw kilifa day mat ndigal kilifa bu joxee ndigal rek baat kenn amu ci droit teg baat comme président Seydina Ousmane Sonko joxe na ndigal waaw bu ko joxee rek dañuy jëf rek waaw bu laajee joxe bakkan bi sañ joxe bakkan bi xam nga rek moom mooy loolu waaw moom kilifa la da koy mat kilifa mat na palaasam moom saa yu jëndee rek dafa war a jënd day mokk lu mbax mu jënd wax bu waxee ñu jëf ñun daal na wax rek ñu jëf. même bu ñu waxee dem leen jëndee Macky Sall ci palais bi ñuy dem jëndee ko maa la wax ni dañuy jaayante ba mu fat ba mu saf-saf laa ila yorobka maa ngi lay salaam salaam salaam dañu koy jaayante ba mu fat jaayante rek président usman Sonko Seydina Ousmane Sonko nee na takk leen masque bi kon nañu takk masque waaw takk leen masque ba pare dem bindu ji ci list électorale yi loolu rek la soxla waa ci yéen comme kilifa joxe na ndigal ndigal day mat rek jëf xam nga kilifa moom kilifa bu jënnee rek dañoo war a exécuter sans hésitation ni murmure waaw moom mooy autorité bu joxe ordre waaw moo koy assumer kon nag nañuy assumer ñu ñëpp amuñu xaar amul layam layam takk leen max yi takk leen max yi ngeen respecter mesure de barrière ngeen aar seen bopp parce que Ousmane Sonko daf leen bëgg de daf leen bëgg réew mi bëgg Sénégal yi gëm Sénégal gëm réew mi moo tax bu jënee ne Sénégal yi tàkk leen max waaw même ñun ñi nekk bitim réew sax dañuy tàkk suñu <laughs> njaboot yi ñëpp ay même même extraordinaire même nuit nuit niw yi bàmmeel yi sax dinañu tàkk max bàmmeel yi gars yi fu ñu nekk ni ci biir bàmmeel yi sax tàkk nañ seen i max man maa la wax ni ah yow kooku kenn ko caaxaane buñu waxon dem lañu jëne Macky Sall ci palais bi sax ñu waxu dem jëne ko Yoroka <laughs> eh, ma classe 80 daw waaw waaw yow Dakar Bango nga ne kon hey eh, ban classe nga yow ah attention de waaw waaw jaajëf <laughs> waaw takk leen max yi loolu rek la waaw xëy na nga nekk sama classe waaw kon gaaj yi ñu ngi leen di wax ne ngeen jënd dem bind ji ci liste électorale parce que fukki fan ak juróom rek la ñu am te ci biir fukki fan ak juróom yooyu ku ci nekk war nga dem bindu ci liste électorale te boo leen di bindu. dem len ci préfecture sous préfecture ak mairie baña dem police ak gendarmerie ndaxte képp ku dem police ak gendarmerie do am carte électeur carte d'identité dong ngay am waaw mom lañ lay bindal Abdou Amadou saw ma ngi lay ziar mom rek lañ lay bindal kon da ngeen fagaru dem bindu ji ci liste électorale yi te xam ku ci nekk carte bi mooy sa kaddu mooy sa doole mooy sa fetal waaw fetal bi mooy sa carte carte mooy sa kaddu voilà fetal bu war a daaneel Macky na mooy sa carte électeur dem leen ngeen bind ñëpp waaw mag ak ndaw góor jigéen waaw ñu ngi lay ziar Aliou Sow waaw mag ak ndaw góor jigéen fi mu ne nii bindu rek bindu ci list électorale yi rek waaw bu ko defee day gën a baax waaye bu leen fàtte takk si parce que nag euh, président Seydina Ousmane soo ko wax na joxe na ndigal na ñëpp takk. liir bi sa day takk liir bi sa day takk max liir waaw buy jël bi biberon bi sax dañ koy bënnal foofu noonu mu jël biberon bi mais dana takk max de waxuma la riir sax mais si ngeen ni ni ni ni tëdd ci bàmmeel yi sax dañuy takk max parce que soo Sonko boo wax waaw ah, ñun soxla ñu xam ndax baax na baaxul exécuter rek les ordres sont à exécuter sans hésitation ni murmure l'autorité qui les donne en est entièrement responsable ah, waaw yii tuuti tuuti Abdou dem bindu ji rek takk max rek mooy xaw bi amul leneen di leneen lu ñu wax fii rek diversion la leneen lu ñu wax diversion la ah fëgg dëkk ah jaajëf ah tu avais quatre ans <laughs> waaw loolu la yàlla dogal nag waaw fi mu ne nii amul leneen lu ñu fi tegal diversion la moo toj ndaal tojul ndaal li moo sàcc dàll bi sàccu dàll bi suñu yoon nekku ci ñun daal bindu ci liste électorale yi rek moo fi nekk ak takk max jeex na dem leen takki max yi dem leen bindu yi rek donc amul leneen lu ñu war a wax bindu ji rek ci liste électorale primo votant yi cinq cent mille primo votant yu mu xaañ dañu am fukki at ak juróom-ñett jël leen seen fukki at ak juróom-ñett yooyu ngeen def ko gànnaay ngeen xeex ko mooy lan wàcce leen ngeen yéen primo yi wàcce leen ngeen dem wax sénégalais ñi dem voté ji gannaaw daf leen xeex ne leen doo leen wote yen tam jël leen seen doole ak seen juróom euh, ak seen euh, fukki at ak juróom-ñett ngeen def ko gannaay ngeen góorgóorlu wàcc ci terrain bi yen primo votant yu mu yu mu ne doo leen wote ngeen dem génnee Sénégalais ñi dem bind waaw bu ko defee euh, année prochaine di ngeen bind par force munu si dara parce que boobaa di ngeen di ngeen dépassé primo votant waaw les primo votants qui sont, qui sont victimes de la dictature de Macky Sall en les empêchant de ne pas voter, prenez votre, votre âge de 18 ans, descendez sur le terrain, allez-y sensibiliser les populations, vos frères, vos mamans, vos soeurs, vos grands-pères, vos tantes, vos oncles, pour qu'ils aillent voter. ça, c'est le travail, ça, c'est la vengeance. Alors, pour, pour bastonner Macky Sall, il faut prendre les 18 ans que vous avez et descendre dans les maisons pour aller sensibiliser. c'est ça waaw loolu rek moo fi nekk leneen nekkatu fi quoi fii moom dóor mu daanu rek takk max la dóor mu daanu amul foog hmm? waaw la ma jël suma café waaw xeex bi la ñu nekk nag comme euh, moom nee na guerre bi mooy nañ dem bindu ji ci liste électorale dem leen ngeen bindu ji bu ko defee boo leen bindee ba pare. après ñu jublu na ci xeex fichier bi foog mu dem na il faut que ñu nangu maire yi parce que maire yi ñoo ñu sonal ñoo jaay soufi ñoo tëj kër yi ñoo tëj diil yi ah, mu foncier bi yëpp ce sont les maires de APR et de Benno Bokk kon pour ñu mëna xex xeex loolu faw ngeen dem bindu ji bu élection jotté ngeen dem voter massivement opposition bi jël maire yi yëpp. bu ko defee nag jàmm rek lañu jeex man maa la wax ni waaw ok à ce soir bu ko defee jàmm rek lañu am waaw donc mun ngeen doxantu ika waaw bu ko defee jàmm rek lañu am fi mu ne ni moom rek dañuy takk max dem voté parce que président Ousmane Sonko joxe na ndigal te ndigal bi bu ko joxee mooy dañuy exécuté rek amul leneen lu ñuy laajam amu fi waaw lu joxe rek jox ndigal fagaru ci teel loolu mooy. affaire moom daal na continuer taxaw taxawaayam taxaw kilifa parce que kilifa boo boo njabootee dangay taxaw ci sa njaboot waaw bu fekkee njaboot njaboote nga dangay ngay taxaw sa njaboot loo gis liy ñëw li war a gaañ njaboot bi li war a lor njaboot bi nga jóg jën wax ci wax ci njaboot ji wax leen li leen aar màgget war naa bay mat naa bay ci réew looloy dëgg waaw moo tax euh, taxawaay euh, président Seydina Ousmane Sonko ñu ngi koy sant di ko parce que gis nañ ni mu ngi taxawu Sénégal taxawu sénégalais yi na Sénégal bëgg na sénégalais fonk na boppam fonk na réew waaw te boo gisee langue politique bi mel na ni moom rek moo fi nekk waaw moom rek du keneen moom rek moo fi nekk opposant jënd di wax te na continuer di jënd di wax waaw parce que su waxee ñëpp danañ xam dëgg la wax waaye bu noppee rek yàqkat yi nga xam ne ñoo yore Sénégal dañuy continuer di yàq di luubal alal réew mi di fen Sénégalais waaw di fen Sénégalais kon jënd moom am na solo waaw. jënd bi moom am na solo na ci continuer bu baax waaw bu mu bu mu noppi mukk parce que réew boo ko yoree doo noppi te tey réew mi moom moo ko yor moom moom Seydina Ousmane moo yore réew mi ah mooy joxe ndigal ñu exécuter moom rek mooy wax ñi def keneen waxul ci biir Sénégal ñi def waaw dama bëgg loolu leer keneen waxul ci biir Sénégal ñi def ku dul ku dul moom moom la ko yàlla jox. kaddu bi mu ngi ci mom waaw bu ñu waxee dem lañu jëndee Macky Sall ci palais bi ñu waxu dem jëndee ko ñun faalo ñu police faalo ñu gendarmerie waaw bu joxee ndigal nag dem lañu jëndee ko déloger ko ñu dem jëndee ko comme mom nu waxé comme Macky Sall nu ko waxé Ablaye si Ablaye vole les élections nous allons le déloger au palais nous allons marcher sur le palais pour le déloger bu Seydina Ousmane waxee dem leen jënne Macky Sall rek ñu dem waaxu léegi jënne ko du fa yendu déedéet voilà kon tey thème bi mooy dem voté ji rek bindu dem voté ji xeex na ndaw ñi nee na ndaw ñi ñi am fukki at ak juróom ñett duñu bindu ji mooy mooy jeunesse bi jeunesse bi du bindu ji parce que mom xam na ne yàqin ni sénégalais won nañ ko gannaaw tey sénégalais tey biñu wax sénégalais moy ndaw ñi waaw jeunes les jeunes représentent 70% de la population. ñom ñëpp ñoko won gannaaw même ña nekk APR sax won nañ ko gannaaw mala wax li kon na ñëpp dem voté yi té xamné bindu bi moy suñu arme moy suñu dolé oui ma carte mon fichier wa c'est l'arme fatale Yoroka derrière ma carte mon fichier mon fichier ma carte ma carte mon voix ma voix ma carte ma carte euh, mon arme euh, euh, mon arme ma carte Le rec. lenen amu fi lenen luñu ñu wax ci jamono diversion là bañ nañu ba ñoom corrompus les maisons de presse la corrompus la kenn waxul ci bindu yi amul amul sax support de publicité pour ñi ñi sénégalais dem bindu ji loolu yëpp xeetu sàcc la ak xeetu njublan Waye ndok bayel yel ba ñu internet ak réseaux sociaux yi Ñi wax ak sénégalais Ki kenn mënu fi laq dal sénégalais jënd leen ngeen dem bindu ji yéen ñëpp mag ak ndaw góor jigen bindu rek moy wax ji leneen nekku fi ay diw sàcc na xaalis bi fii ay diw dëgg na wëndal tëgg na wëndalu mbër mi wala combat bi dañ ko annulé yooyu yëpp ay faux débat la diversion la rek ay Gaston toog fële ci plateau bi di ratatatata ci fédération football bi toog fële di ratata ñun soxlaw ñu yooyu ñun lu ñu intéressé mooy carte bi bindu ji rek liste électorale yi dem leen bi foofu mooy wax ji dem leen bindu ji waaw dem leen ngeen bindu ji bu baax a baax a baax a baax a baax a baax

parce que Macky Sall kenn du ko bàyyi waaw duñu ko bàyyi ci bopp réew mi te du fi toog ma leen di nuyu wasalaam gis ngeen euh, oto baa ngi ni waa xëy dóor waar jot na kon ñeneen di jox dig daje su